ndax jàpp nañ ne njëg gi boo ko doon def ay pàcc pàcc <clears throat> am na ci pàcc yoo xam ne ni luñ ca ñambaas la waaye waru caa gis nañ ko déjà ci engrais bi li tax engrais bi wàññeeku danoo gisoon luñ ca njàmbaasoon hmm, am na ñuy wax ne sax mbootaay dañ koo def loo xam ne ni ba nu ñëwee ñaar euh, bu dee 1000 francs bu ne rek am nañ te 200 francs d'économie te danañ ko fexe def ci lépp danañ fexe aussi lépp lu jëm ci lu mel ni pétrole lu jëm ne essence lu mel ni ceeb blé fexe ba léegi ku koy jëndee ci bitim réew gouvernement bi dugal ci loxoom nan mooy fexe ba par exemple bu dee li jëm ci essence ak pétrole ñuy def ay appel d'offre ndax gis man ne ci prix bi ñu koy jëndee Sénégal ñun bitim réew ñeneen a ngi koy jëndee lu gën a yomb loolu gouvernement bi dana ci dellu si danañ fexe di woote ay appel d'offre kazaalika ci ceeb bi itam gouvernement bi dana seet nu mu ko ànd ak importateur ma leeral nag du gouvernement bi day dem nangu lim yore ñoom seen loxo déedéet da ciy dugal loxoom pour fépp foo xam ne ne mën na leen fa jàppale ci bu ñuy jënd ji fileeg ñu koy mën a defal suñu bopp. mu dem dox ci moom la ñuy wax diplomatie économique ba pare fexe leeral lépp ba mu yomb loolu itam day loo xam ne ne danañ ci sóobu lu mu gën a gaawe li jëm ci fi ñuy jëndee sunu essence beeg sunu pétrole beeg sunu gasoil bi gaa ñi ngi fekk société africaine de raffinage waaye day jëndi bala moo raffiné jënd yeneen station yi dañuy dem jëndi ji directement def ci seeni i mbànd gouvernement bi décidé na ne fa mu koy jënde ji dana def na ñëpp nag ndax euh, bu fekkee ne yaa ngay jënde fële bis bu ne bis bu ne ñu ne la am na keneen kuy jaaye lu gën a yomb wala keneen ko xam ne mën na la yombal yëf yi da dem seeti ko te loolu dox nañ ci déjà ay jéego ba am na ñoo xam ne ne nee lu jëm ci produit pétrolier mën nañ ñu ko joxe ci njëg yomb te loolu ragal naa ne <clears throat> balaa at mee dee da ngeen ko gis li ci tegu mooy mbiru importateur commerçant yi sama mbokk commerçant yi suñu mbokk bawal bawal yeeg njàmbur njàmbur yi lay waxal eh, dem jëndi jaay yomb na lool xaalis la laaj waaye yomb na lool gouvernement yi nag bëgg ñoom loolu ñuy dem di jéegaani ñu ñëw xool ci réew mi ñu jox leen jumtukaay yi ñu leen war a jox ceeb ba ñuy jënd ji ñu ñëw ànd koog ña koy produire jënd ko ci ñoom wala ñoom sax bu leen neexee ñu ñëw ne jox leen ñu ñu bay loolu gouvernement bi nee na dana ci dox dox goo xam ne ne loolu dana fexe mu nekk waaye nag dana ànd ak lum ci teg mooy ne di payi mooy déclaration d'importation de produits implémentaires loolu ñuy wuti ji ministère des commerces léegi day danañ ko waxtaanee ñoom ba xeexee que ki nga xam ne ne ma ngay jënd ceeb lu bari bala mu ko amati dana ñëw ne ko ban engagement nga mën a jël ci jënd li nekk ci fii ñu ñuy bay ci réew mi walla nga dem yow ci sa bopp dem bayi ji loolu il faut que ñu waxtaan ci pour que ñoom tamit ñu indi seen seen seen ñu bay seen waar ci too ci seen waar li ci tegu te loolu laay jeexale mooy euh, bu nee wàññi nañ njëg alalu askan wi la ministre des bii di jël ji ci def muy lempo yi ñëpp di fay waaye subventionné koo xam ne ne soxlawu ko loolu jaaduwul boo ko jëlee ci petrole bi jël ko jëlee ci gaz bi jël ko ci essence bi jël ko ci gasoil bi jël ko ci électricité bi subvention bi ay centaine de milliards la waaye ñan koy jox ñoom daanaka am bu ñu demee ca jaaykatu koñ ba ca bis ba la ñuy jënd moom la nit di am salaire gouvernement bi décidé na ne léegi moom dana fexe def ay jumtukaay yoo xam ne bu defatee subvention néew di doole yi góorgóorlu yi ñooñu la ñuy lu nu subventionné yi borom daraja wala ko mënal sa bopp ndax boo ko xoolee mbiru gasoil bi ak pétrole bi man mii ñu ngi may subventionné normal. ñi ngi subventionné ay directeurs généraux normal ñi ngi subventionné commerçant yoo xam ne ne normal diplomate yi nekk fii ñi ngi leen di subventionné loolu itam normalul donc daal li ñu décidé mooy ne désormais te loolu duñ ci xaar kenn ñëw nañu lii mooy yoon ndax fonds monétaire da ko daan wax booba ba léegi waaye premier ministre bi mu leen gisee li mu leen jëkka wax li nga xam ne ni man dama ko war a def ndax loo xam ne ni moom la xel nangu duma ci xaar kenn ne ma digal def ko nee na leen man li ngeen di digalaate maa leen cee jiitu fexe rek ba bu ñuy jëlati ci alalu réew mi di ko jox subvention ñu jox ko ñoo xam ne ne ñoo ko mérité Pour terminer, ces mesures qui ont été annoncées entreront en vigueur après la réunion du Conseil national de la consommation qui sera convoqué à cet effet dès la semaine prochaine. Voilà, mesdames et messieurs, notre déclaration. Nous restons ouverts, monsieur le ministre des Finances et du Budget, monsieur le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, ainsi que le secteur général du ministère de l'Industrie et du Commerce représentant le ministre à votre disposition pour quelques questions. Aramda, vous allez nous aider à organiser les questions. Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement. Donc nous allons prendre, mesdames, messieurs, quelques questions en vous euh, pour permettre à un plus grand nombre de poser journaliste quotidien Midi Baba Ndiaye RFI Mali quotidien Midi Baba Ndiaye RFI là, Fana Sissé et Léa Lisa. Donc on a une première liste de cinq intervenants pour vos questions et Malick Gueye du journal Le une question par journaliste. Voilà, une question. Comme ça, les autres auront le temps. S'il vous la question.